commune ku ne am nga fond de concours mosul am histoire Sénégal. ci laa ci si li ma la bëgg a mooy. lu mel ni PNDL lu mel ni ADM banque mondiale ba doon financé lu dem na ba ñu jox projet bi na satisfaction ndaxte dem nañu ba taux d' exécution jege man nag dama ministre de l' intérieur dama ministre des forces mosuma élif police. li ma def bu ma defee découpage ba ñu installé délégation spéciale ci jàmm ak salaam ajjuma ñu toog ajjuma samedi dimanche délégation spéciale oote wu fa waa dëkk ba jog ñaxtu dajeeg waa gendarmerie xeexoo am fa bakkan rot fa ginnaaw bi ma yeesale sama njaal di naqarlu bakkan bi rot ndaxte bakkan moom bu ñu sañoon yàlla rek moo koy rotaleen eh, nam ko bëggee waaye mu bañ a jaar ci loxoy doomu joxoy doomu aadama ginnaaw loolu nag eh, jéeñ ma leen yomb na lool mm-hmm. du man may commandé police du may commandé gendarmerie sécurité publique mosuma koo élif man gox découpage laa def pare ca ñu installé sama délégation xuloo amul euh, gaañu amut deret tuurul ñetti fan après la ca tegee la ca la ca amoon la ko laloon ak la ko waroon la ca waroon mu defe naa man kooku nañ ko laaj kenn buñ ko laaj Aliou Sow mhm. génn ay léwén nag bakkan moom fu mu rotee wala mbiru nguur fu ci nit gaañoo wala am lu ci xuri wala lu ci xosi koo koo xam ne yaa ngi ci biir réew ma war na laa naqari ndaxte bu ñu sañoon lu ñu def mbégte rek lay jur. mais amul dara lum mu la perturbé loolu ci sa ci sa ci sa ci sa sommeil wala ci sa xalaat. xam nga man dama nekk xale boo xam ne nii dama juddu teel a gëm ne dama war nekk état état boo ci nekkee li ñuy xaar coow mooy nga am fitu dogal jëfee sa xalaat bi nga xam ne gëm nga moo gën ci askan wi diisoo nag am na ci solo. Mhm, concertation. sëñ euh, kilifa gu baax sëñ Abdoulaye dana wax ne. bu ma juumee ñëpp juum ndaxte bala may dogal damay laaj ñëpp ñun la ñu war la ñu waroon def def nañ ko mooy tàggoo yëglu laaj ñu bëgguñoo song indi ay rapport de force yoo xam ne leneen la mais nag bu nekkee ne nguur yaa ngi ko yor te mënatoo dogal moo yoratoo nguur booy dogal nag même boo doon ñëw tey war a defar yoon woo xam ne ñëpp ko soxla fi muy jaar garab dina daanu mun naa jaar ci kër goo xam ne ni kër ga dinañ ko toj borom kër ga mun nañ ko fay ñetti yoon la nga xam ne ni mooy njëgu këram waaye am loo xam mënoo ko ko fay mooy cofeel ak takk gam takk bërëb boobu mënoo ko ko fay ku bëgg a sëñ bi li tubaab yi di wax ku bëgg a def omelette mhm. di toj tojee nen mhm. kon nag nguur moom ku ci def benn weer boo cee jógee booy mën nga bàllu ak ndaxte ak loo jubal-jubal loo jub-jub loo am xereñ-xereñ ak loo bëri bari xam-xam mhm. ñàkkul sax ba ngay defal lu baax nit wujjëm wala noonu am na ci naqar goo xam ne ni yaa ko ko teg te teyuloo ko wala yëguloo ko jégalu rek loolu mooy. wax nga ni ku bëgg omelette di nga toj nan ku dégg sa wax bi mën na jàpp ni euh, kon bi ngay def euh, sa découpage bi euh, sa sa mentor muy Abdoulaye Wade gañawaat élection yi mën nañ koo jàppee loolu moo waral boom gi sax ñu boom ko. gis nga ni waxin la rek wax wax la wax la découpage bi yow yaa wax ni waaw mais yow yaa wax ni yow yaa wax ni lépp loo xam ni bu ma ko defee. alors sama mentor mën ci am gagné dara. askan wi am ci dara waaw mais maa ngi ci yokk xam nga ni intérêt askan wi maa ngi koy wax. alors voilà donc bu fekkee dagan te méngoog yoon bu bakkan ba des na ci sàngalkam ñàkk ngeen nguur gi ndax kon jar na ko pour yow xam nga bul jëmale ñàkk nguur gi euh, xam nga bakkan yaa ganaaru Sénégal non jox nga ma léegi benn dëkk boo xam ni benn benn benn communauté rurale boo xam ni ci premier tour yi da ko gagné ah ci ci ci mais mais li ma lay wax mooy waxuma sax communauté boobu sax dama la bëgg a wax ne pour leeral ne askan wi ñoo aussi assumer ko rek maa ngi boo mënee revendiquer léegi comme wax la leneen pour man li may li may amal solo mooy askan wi ndax lañ defoon d'accord na ci am déet ndax fësal na ndax d'accord am am déet boo jëlee Sendou ma wax lu leer commune lañ ko def premier tour bi Abdoulaye Wade am na juróomi téeméeru carte ka fa ci tegee Tanor Dieng téeméeri carte la am nga ñëw Bambilor Abdoulaye dafa raw ñëpp Tivaouane Peulh dafa raw ñëpp Jaxaay dafa raw ñëpp loolu la jur mooy dañoo jëfee loo xam ne moom la askan bëggoon ñun laaj ñu ko nguur nag bu ñu la ko dénkee sëñ bi askan ñëw bind la bataaxal ñëw seet si la wax la bëgg-bëggam nga dégg fanaar la ko boobaa nag yaa ngi wàcc sa yoon bi la teg lu ca am nag loo xam ne nii méngoowul ak la ñuy ñaan ci ci askan kooku da nga koy rëccu fexe beneen jëf nga méngale ko loo xam ne mun a mun a moytu loolu mais li ma la bëgg a wax encore mooy mais monsieur le ministre nga li seen détracteurs yi doon wax de que ni découpage bi dara lalu ko woon lu dul politique wax nga ma limal nga ma oh, fii cinq ba six euh, communautés rurales yoo xam ni da ngeen ko gagné mais loolu mais du waxuma le six comital comital yi ñu découpé yëpp presque kon mu nga yi ngeen pour cent ñoo mais loolu loolu kay mais li mu tekki mooy la ñuy def dafa méngoog askan wi ñu wane seen mbégte ci jàppale ka leen ko defal mooy delloo njukkal li ma la bëgg xam nga sëñ bi <laughs> euh, politique buñ nëbbante kon da ngeen ko leble pour ñu fay leen ko delloo njukkal leble lu baax loolu ngeen def loolu ngeen ci jublu lu baax loolu ngeen jublu woon ci découpage sëñ bi ma wax leen euh, pam ngañ mu leer boog boo yeewoo suba teel di julli xam nga loo jublu bëgg nga yàlla may la place ci àjjana sori la allah sori la safara bu nekk kon julli sax day nekk politique bu boobaa boo ñëwee gis léegi sa oto dawaloo gauche dawal droite da ngaa bañ sa taxawal sa oto nangu ko yóbbu la yóbbu yóbbu yóbbu la fi ma xam ne doonee benn sonal la lu waay di def loo xam ne nii mën laa jural yokkute mais la ko lal mooy mbégte askan wa bu nekk loolu mooy politique kon nañ doon politique. Mhm. loolu leer na monsieur le ministre dégg naa la léegi nga nga bàkk sa sa maanaam sa njébbulu goo dellu yeesal ko Abdoulaye Wade wax noo mel ci moom noo taqe ci moom ba bi nga may junj sax ci benn ministère boo delloo woon euh, am na benn genre léebu boo ma ci defal ci koo xam ne sa naataangooloon am nu mu gisee sa diggante ak Abdoulaye Wade mais ci jamono bu ñu delloo ci ginnaaw loolu dafa mel ni euh, fidélité boobu fidélité bu bees la xanaa parce que am na jamono euh, kenn ci ay ministre am problème ak Wade nga pare pour ànd ak moom génn dem seen yoon. kooku kan la Modou Diagne Fada. non demoo noonu Modou Diagne Fada mosul ji ma génn Modou Diagne Fada dafa jiitoon xale yi ma nekkoon ki ñu toftal ci wetam yi ànd boobu nag mu nekk mouvement boo xam ne ni dañ doon liggéeyandoo ci biir nguur. ma dem ba gis benn jamono ay xeexu parti ci biir parti bi demoon na ba bëgg ko jaxase ak Ablaye Wade bañ génne ko ci nguur ga xarit nag lu muy jëriñ mooy boo néewee doole wala boo tooñee boo bëree doole wala nga am dëgg xarit soxlawoo ko bés bu ñu la néewalee doole wala sag mën-mën wàññeeku fa la tey taxawaay ak teewaayu xarit di am solo bu ko nit ñi sot sotoo jéem ko jaxase ak Ablaye Wade te ma nekk euh, adjoint ci wàllu kuréelu xale xale ya ma wax ma la nekk sama xol ak position xale yi mooy man daal kii li ñu ko bëgg a def bu ñu ko seppee sànni ma ànd ak moom. dem ñàkkaale loolu tekkiwul ne dañuy génn parti bi dañuy des ci parti waaye wuñ suñu kilifa bàyyiwuñ parti ba mais loolu fësal coof xarit doon la ak cofeel ak wane ne bu ñàkk gore. Mhm. am gore. ak xarit aussi bés du ñaa xarit daal li muy jëriñ mooy bés lay jëriñ. la mais relation boobu mosoo ko am ak Macky Sall noonu nga ko nettalee ak. Euh, non Macky Sall benn histoire la xam nga lan la Macky Sall ñu ngi xamante ci biir PDS. Macky Sall bi may xam nekk naa député nekk ministre mu jiite mu nekk numéro deux parti bi ma jiite xale yi jamono jooju Idrissa sekk song suñu kilifa ñuy xeex ci politique moom bi jiite parti bi numéro deux ak man mu jiite xale yi ñu bokk ci ñoo xam ne nii ñoo bokkoon ñoo gënoon a la nga xam ne nii mooy défendre Ablaye Wade ak PDS ak régime bi ci ànd boobu ñu jaxasoo ci ba nekk ba suñuy njaboot jaxasoo ci ñuy àndandoo di añandoo di reerandoo defandoo tournée ci Sénégal gépp nag. mosuloo nekk booyam maa ngi ñëw defal booy quoi booy ah booy booy laa wax mosuma nekk booyam li ma nekkoon mooy élifoon na ma ñaari yoon ma nekk ministre mu nekk premier ministre ma nekk njiitu xale yi mu nekk numéro de parti bi ma bokk comité directeur mu nekk vice président comité directeur loolu kilifteefu adduna la comme Ablaye Wade moo ko jox ci man ma nangul ko kilifteefoo ngir dooleel kilifteefu Ablaye Wade la jaxasoo ko ñu ne ba nag cofeel juddu ci moo tax am na daan yu bëri yoo xam ne daloon génn naa fi gouvernement dama fi assemblée nationale naan ma ñu may tuumaal dama jaxasoog moom lool ba ñuy ñëw dàq ma commission affaires étrangères benn bés fàtte ko lool ñëw tas sama réunion fii dagg ay fil song ma fi gaañ ma fi jéem a fee gaañ yooyu yëpp amoon na fi mais loolu la ma ca waxoon dafa leer dama wax ci rajo yi wax ci tele yi lay Ablaye Wade toog parti bi toog man leen président ñii ñëpp toog fi bu ñu xeex ak Macky Sall ma ànd ak Macky Sall mais bés bu la songee seconde ba ca tegee ma song ko ndaxte man ci kenn laa jox njëbalu politique du ci Macky Sall mais ci yow la ba mu demee nag ba jël ndogal pour créer parti génn PDS war a song Ablaye Wade wër Sénégal wax leen ci moom booba laa ca pare des la ma nekk man PDS moom ci lañ ma xamee ci laa màggee ci lañ ma joxe ndombo tànk ci laa ñàkkee ndombo tànk ci laa fas yéene wéy di xeex ba PDS jiitaal réew mi ci ginnaaw Ablaye Wade ci kilifteefu Ablaye Wade wala ci xalaatu ak jaar-jaaru ak gis-gisu Ablaye wadd man daal mm-hmm. ku ci génnoon mm-hmm. fi nga ma bàyyi ku dugaat fada ñoo àndoon bi mu maa ngi ci des mu fekkal ma ci biir maa ngi ci Idrissa Seck ñëw ne ak ñun ci biir dem ñu des fi mu génn ñëwaat fekkaat ñu ci demaat bàyyi ñu fi. Mhm. ñoo nga ca ñun daal. xam nga nag boo joxee njëbbal ci kilifa man dama bëgg kenn duma ma fàttali ëllëg Aliou Sow ba mu waxee wala ba mu defee lu ñaaw ci Ablaye Wade Ablaye Wade li ma ji ci teraanga ci cofeel ak ci yëg ak ci tàggat ci wàllu politique mënuma ko koo fay la laa ko mën a fayee mooy gore topp ko wéy ci waam ba ëllëg si biir bu toogee. ba mënta xëccoo gisuma may xëccoo ne ay lay ween xale bi juuma moo tax ne óolu kon du ci idéologie waaye ci jëmm ji la moom Abdoulaye Wade man libéral laa ba demoon naa nekk vice président international libéral bi yor ba ëmb xale yi Afrique bi yëpp ñu jé jéggal jébbal ma wàllu xale yi Afrique yëpp nekkoon ko ci wàllu libéralisme mais man Wade rek laa dégg ngay wax mais Wade jébbalu ci moom mais xamal xamal li tax moo tax parce que idéologie ay nit ñoo koy ay nit ñoo koy nas ay nit ñoo koy taxawal ay nit ñoo koy bind ña ko bind incarné ko libéralisme ci Afrique ki ko njëkk a taxawal ci Afrique ci parti dem opposition légale Ablaye Wade la dañ dem mën li may ooyee waddisme sax nekk benn bànqaasu libéralisme boo xam ne ni mooy libéralisme boo xam koy doxalee ci Sénégal méngale ko suñu cosaan ak suñu aada loolu laa ooyee waddisme waaye libéralisme boobu moog Ablaye Wade ni mënu ko féewale waaye li man la mën a wax mooy xam nga loo gis xalaat boo gis ci nit la jogee ko mhm. munoo gëm xalaat bañ a gëm nit mais nit que bés bu soppee xalaat nga topp sa nga topp sa sa sa xalaat boobu. Euh, monsieur le ministre nga Abdoulaye Wade ma la leen la. Mm-hmm. ci ci ci firnde. Abdoulaye Wade xamul sama baay xamul sama yaay man ngi dëkk ci àll bu soree sori Kër Paate Ndakaaru bag moo fi mu daa ñëwaat ci xale yi jël ma 2002 fukki at ca ginnaaw la ma taboon ministre ma gën a nekk xale ci gouvernement am fukki at après muy génn gouvernement bi génn wàcc ci jiite réew mi maa ngi nekkaat encore ministre ba gën a nekk xale day ministre juróomi weer ñaari weer ñetti weer donc fukki atu gouvernement à part bi ma génnee sama bopp man bàyyi démissionné dem assemblée nationale. Mhm. lépp maa ngi ci kilifteefam mosul si signé kayit bu ma dàq. Mhm. loolu nag ku mu doyul dara doyul la. waaw ah, loolu amoo ci mérite pour yow. kan loolu moom nga koy gërëmee yow amoo ci benn mérite nga baadoolo boo ko defalee lu mu ne moo day noonu wala wërsëg ma day noonu. Mhm. du wax du du du la gërëm yow mu ko def. te borom bi ne bala nga koy gërëm na gërëm doomu aadama bi mu jaarale lam la defal bu ma nekkoon sàmba wala sagaru nit. wala ku xamul dara wala ku mënul dara du ma defal loolu mais bu ko delloo sama bopp rek gore di naa ko delloo cër ba ak mbaax ga ak gis-gis pare pour venger ko wax nga ko venger le père mooy bu bees waaw mooy venger le père mooy sa programme bu bees es ce que dina yomb venger Abdoulaye Wade est-ce que dina yomb pour yow venger ko li tax ma wax ko moom mooy venger koo xam ni euh, d'abord ñu wax ci avant les élections forcé na benn mandat adduna yëpp dégg ko adduna yëpp dégg ko mu taxaw wax leen ni leen mënatuma nekk candidat euh, c'est vrai que fàttaliku lay indi mais vengeance bi mooy tax ma posé waat question boobu. Mhm. Euh, est-ce que dina yomb venger nit kooku nga xam ni moom moo forcé euh, benn benn benn candidature am muy troisième bi ba ay nit yu bari ñàkk ci seen bakkan dina yomb nga venger jëmm jooju. bala may ñëw ci ci ci venger Abdoulaye Wade yomb la lu tax lu tax muy yomb. démocratie Sénégal bu yegsee fii tey bu ñuy gërëm ña ko lal ñee canu mbaaru démocratie Sénégal mu ñu leen ñaari nit ñett nit boole moo njëkk a taxawal parti opposition légale ci Afrique samp ko ci jàmm ak salaam mhm. ak xaar bañ a xaddi gëm ne ku yàgg ci teen baag fekk la ca jarul jël fett jarul jël euh, xepp jarul jël fetel mu ñaar fukki at juróom benn ñu koy tëj kaso di ko bundu xataal di ko jaay doole di ko meraloo di ko def lu nekk mu muñ xeex nag def na ko lu mu fi war a def mais xeex na xeex boo xam ne nii bu dee taal def na ko bu dee ay nit dee ci def nañ ko lu ci mën a nekk ci ci ci opposition boobu ba démocratie boobu taxaw boobu def na ko bi démocratie boobu taxaw waaw mu ñëw jël réew mi fukki at ak ñaar amul kenn ci Sénégal ku mën a dox juróomi kilomètres yoo xam ne gisoo xam ne lu ne weng lu lu mën a fees gët te muy jëfu Ablaye Wade ci biir réew mi mais Sénégal Afrique ñëpp à quel prix la ñuy wax maa Afrique ba mu def ñëpp à quel prix fu nekk muy takk fu mu dugal loxoom mu fay mm-hmm. bu ñu demee yàlla def ko buur bu am wërsëg waaw ba mu ñëwee alal taw ci réew mi réew mi soppeeku ba tey lu bare nga doon am ci réewu tugal tugal boo ñëwee Sénégal gis ko fi gàcce nga la man lu laa gis ci Abdoulaye Wade xam nga kër paate gi nga wax lan la leen nga wax fa nga cosaanoo ma tàmbali ba ma bëgguma Ndakaaru ngay wax Dakar ñu wax kër paate waa kër paate ba ma fay cosaanoo jël réew mi kër paate ay néegu ñax kott fa nekkoon bâtiment en dur amu fa woon amuloon teen kon amuloon robinet amuloon courant amuloon ndox amuloon école man dama doon xëy dox ñetti kilomètres jàngi wàcc ñi dox ñetti kilomètres ñëwaat tey ji may wax a yow yoona nga kër parce que man cil ma xambaako dama cosaanoo amu fa bi ma cosaanoo dëkk fa li ngay wax ni amu